xalabtu kulli li karimu baxa taw beexe ikramin wa qultu bax baxa salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne bi nga xam di Saint-Louis na am nag mooy que doon nekk xam na ne bu nee safar gi xel yi dem ci màggal Touba ba tax na tey seen télévision amal plateau bu am solo bi ak sunu papa nga xam moo di Pa Minirou Seck nar waxtaan waxtaan am solo ci màggal gi waaye mu nuyoog ñi nga ne ko seetaan Papa Minirou ñoo ngi lay bi ko zurriyataha rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika ñu ngi siyaar mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp fu mën a ne ñaam mbégte mm-hmm. dalal la tey si plateau Saint-Louis TV mm-hmm, sant waaw ñu nar waxtaan ci màggal gi waaye nag mm-hmm. euh, donte sëñ bi du ku ñuy xam dëgg la ndaxte nee woon na ñett ma xam mi yàlla ak yonent bi ak ki ne ci bàmmeel dëgg la waaye je pense que tey bu nu tàmbalee waxtaan bi yoon la ci ñi ku mel na man ak samay moroom ñu mën a xam kan mooy sëñ Tuubaa bu tedd euh, lu yomb la te jafe. Mhm. waaye dañ koy teunk ci waxi Cheikh Moudoul Basir ndax mhm. euh, lo xam-xam demba demba gën la xam boppam. Mhm. te Cheikh Moudoul Basir borom tib ak poroxaan mom rek a dundu ak ku tedd ki fukki at ak juróom yum mu ko wol ak moom. bo demé ci khadimi mi mom mo wax ni ku tedd ki dafa mossa julli tisbar nee na bi mu sëlmalee. di woote bi mu gis mbolo mi muniko Basiru ñi luñ fi def. nee na dañuy sako xam nee na mu ne ko faat na de waaye woo leen ma dimbale leen. ilaha illallah. nee na ñu daal di ñëw sëñ bi daal di wax. ci arab ba mhm. noppi nettali ko ci wolof. Mhm. mu bind wax ne man képp koo xam ne araada da nga jóg te sa yitte yëpp. ak mhm. yaxari fa ne mooy nga xam kuy sëñ Tuba. mu ne bu bi tarkibil archites bu fekkee ci nettali téere rek nga ko teg. wala istiqra wala ci histoire. mu ne mi nga bokk ci ñooñu nga xam ne xafa sa wattu nañu taarix maanaa histoire yëpp nga jàng ko ba wattu ko ni mhm. jóg ni danaa leen xamal kuy sëñ Tuubaa nee na fa huwa kooku mhm. ajalu naa si mhm. biir mooy seet ki ma gën a umpale neel benn mu mel ni foofu dañ ko ne yow a kan innama ana abdun tawala ni rabbi maay koo xam ne sama lépp ci loxo suñu borom la nekk kon fala sabila li ahadin ila mahrifati amrihi xayrahu taala wa rasuluhu nee na bu fekkee ne jaadu na ci am ku ma xam mooy yàlla mi ma bind ak rasulillahi alayhi salatu wasalaam mi tax ñu bind ma kon kooku ci gàttal mooy Cheikh ba moom xam ko moom soob na xam ko moom moom du lu mën a ne mu mel ni mu mel ni màggal gi tamit daa mel ni euh, lépp ndar la commencé dëgg la mën nga ma ñëw ñëwal tuut ci ndar dëgg la mhm. euh, ndax bi mu bindee wax ni xarajtu yow ma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fi shahri safar mhm. booba fekk na mi ngi génne mbàkki baari ndax bi muy dugg xëlwa ba suñu borom nangul ko yoonu géej gi mhm. euh, da ko wax ni ko ñaari sart laa ciy teg bi ci jëkk mooy sëñ bu soobee. faaw mhm. mu génn jamono ndax bu yëgee ni jaayante nga ak man. Mhm. juboo nag man juboo ko xam ne bu ñaanee danaa kii lool te bu. suñu borom wax waaw. Mhm. dana indil alkande. te la amoon doon ko ñàkk te sëñ Tuubaa lu muy dem ci géej gi booba ñetti weer moo ko tee doon xut bu zaman. ñetti weer ñetti weer képp. loolu kon mooy sababu njëkk bi mooy foog sëñ Bousso bi génn jamono. beneen bi mooy. Touba gi mu sancoon sange ko ci Matlabul Fawzayni. wax sunu borom ni ko. ñaan ko yàlla ba yàlla nangu ko ne ko dëkk bi bor maanaam bekkoor du ma fi fekk mhm. bàkkaar du fi fekk lor du ma fi fekk sunu borom ni ko kon da ngay génn Touba mu dem sañ ci Mbàkke Baari foofu nag la départ ñëw Ndar ci gàttal mhm. Mhm. jaar jaar ndok bérébub sëñ Matar Numbe ñëw Louga ñëw jeewal jeewal jeewal na nga jiitu Louga jeewal googu la bind wax ne sunu borom moo ko wax ne ko bis na ko tey boole naa la ci ahlul badr la ilaha sëriñ bi bindal boppam wax ne xaala wax na allahu yàlla li ahli badri ñeel waa ahlu badr moom leen wax mu ne inna abdi haasa jaam bii ngeen di gis mhm. axrajul fujjaaru kàccoor yi ñoo ko jàpp génne mhm. mu ni fas saara mu mujj mun faridan di aji wéet waaye ishhadu na ngeen seede ni indi naka man yàlla jaxaltu dogal naa mu bokk ci yéen la ilaha illallah da dogal naa mu ishhadu seede leen ni indi naka man yàlla jaxaltu dogal naa min ku mu bokk ci yéen indi man mi yàlla man yàlla dafa dafa dafa leeral dafa leeral wax ji leeral ni sunu borom moo ko boole ci badr sëriñ bi saraa loolu ci mbindam boo demee ci mhm. mooy bu naaf ma naafeex day wax ni fa wattu umri li muqi umri maa ahlul badri kon mook ñooñu mhm. baati nay tukki dëgg la Touba bu fekkee ni min ko am na ay bërëb boo fa demee dana la ñi waa ahlul badri fii lañ nekk dëgg la rawatina bayti googu bayta mhm. kon sëriñ bi duggee jawal boobu la fa xew bëri na waaye dafa gudd moo tax dañ koy tënk rek foofa kon la jote ndigalal bokk ci waa ahlul badr foofa it la dugge war fasam wow di xaw nu laahi ñëw Louga daal di dugg saxaar ñëw Ndar mhm. Louga jeewal mi ngi tombeek le 10 août 1895 fekk na Leclerc mooy commandant de cercle bu Louga moom lañ jox ndigal ne ko demal jàpp sëriñ bi mort ou dëkk boo ko fekk da ngay taal dëkk ba rey nit ñi ba noppi jàpp ku tedd ki indi ko kon loolu moo doon digal li mhm. bi mu ñëwee jeewal moom daal di dafa tàmbalee lal di julli fekk asamaan ngi xiin penku ba soow ba tàmbalee dal di ndox muy samedi 10 août 1895. Mhm. ñu soññ ko soññ ci mu dem sëriñ bi ni moom demul ndax jotul ndigalal rasulillahi moom nee na benn sëriñ la am mooy yonte yàlla Muhammad wax na kulli man loo maqoolu anna wasilati wa huwa rasul benn sëriñ boobu la yonte yàlla moom la sëriñ Tuubaa am mhm. kon ñu soññ ko soññ sëriñ bi daal di mel ni ku déggul kii bi ñu daal di koy song nag boo demee ci rapport Leclerc hmm. nee na bi ñu songee ku tedd ki dafa mel ni leer lu mel ni melax nee na mu jóge ci asamaan si dal ci seen kaw hmm. nee na ñu fanaane xëm ñii di yooxu ñii di luur ñii di yàq seen tubéy nee na ba fajar jot sëñ bi moom nekk ci yàlla ak ay jooju ñuy wax inna waliyallah allazi nazala al kitaaba wa yatawalla saalihin si la yo hmm. sëñ bi nekk ba fajar jot sëñ bi daal di war fasam moom daa daal di dugg otoraay daal di ñëw ndar wàcc leen fa jeewal googu bëri na yu fa xew mhm. foofa la ko jibril alayhi salaam waxee ne ko sunu borom nee na isa laqitumul lazina kafaru zaxfan fala tahumul lat baara ci suratul anfal mhm. ahmadu mu ne naam mu ne ko sa borom nee na bis naka tey diine lislaam mi ngi ci sa loxo mhm. kéeféer mi ngi ci loxo lëkkaleer ku mën tey yaay mën ba àddina di tukki kon ya xew jeewal bëri na waaye dañ koy tënk rek kon sëriñ bi dugg saxaar daal di ñëw ndar mi ngi tombeek lëndi maanaa 12 août 1895 kon ci le ko tedd ki dugg si Ndar mhm. bi mu ñëwee it yonent yàlla Muhammad alayhi al wasalaam mhm. moo ko tànnal fa mu dal Cheikh Moussa Ka leeral ko wax ni mu daal jaare kër Ahmed Khoureyshin ñu ne ko lu mu ni ngir lam mhm. kon yonent bi asiru mal abrari ma ngi ko Asmau jeewal asmaaw ahlul badri fa la ko ak inani ustubil muhini asiru nagla la kon bobo li wax le conseil colonial privé fi lañ ko daan taxawale nga xam gouverneur général d'AOF booba nekk fi sax waaye gouverneur bi ko remplacé par intérim mi ngi tudd Mouté mom mo recevoir ku tedd ki ci 5 septembre 1895 muy bis bu tedd bobu nga xam ne yépp xam nañ ko mhm. damay wax ni danañuy magal ku ne lu ne waaye julli kenn lañ koy màggalal. ci kaw ah, suuf muy moom penk ak soowu bët gànnaar ak bët saalum mooy si Ahmadou Bamba. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi te du woon sax ak na ak nawaafil sëñ bi na booba. Mhm. rakk bu njëkk bi. Mhm. Faatiha la ak Baqara. Mhm. yàlla laa ko nuyoo. Ah, rakk bu ñaareel bi. Faatiha la ak Ali Imran Rasulullah ak Ahlu Badr laa ko nuyoo. daa mel ne daa la rek ñaari ràkk yi kon sunna la woon rek. waaye sëñ Tuubaa moo bind wax ne. ci xas di gu ñuy wax albaraka. ni suñu borom dafa barkeel sama yëngu ak sama teey ba lu ma def barke da ci daal di mu ni baaraka li fil xarakaati wa sukkun rabbi lazi xat xaadali kun fa yakun kon barke boobu ma topp ñaari rakk yooyu laahilalaa ñu dajale AOF yëpp képp ku fi tudd yàlla mhm. di wax ne ab sëriñ nga da ngay jàngale xam-xam baa ngay jàngale xam loo mën a balaa jullit rek ñu dajale leen woo leen ñoom ñëpp bi ñoom ñëpp dajee mhm. ci saalu délibération bii di gouvernance mhm. gouverneur bi def na siri kon dégg na luwal arabiya bi muy wax ak mag ñi waxul ci tubaab wutul interprète ci arab la doon wax ak ñoom. Hmm. daal di fëgg dënn bi nii. jóg taxaw fëgg dënn bi ni am naa mu dabbirul umur man maay yàlla. alhamdulilah bi mu waxee loolu ñëpp ne teg sëñ Tuubaa nee na ma xool ndeyjoor xool càmmooñ nee na dara yëngatuwul maanaam ñëpp ni selaw. kay ku ne kott doxam rek sëgg. <laughs> ku tedd ki nee na man ma daal di bëri jóg taxaw daal di waaxu wuti ko nee na bi may waaxu di dem am na kilifa gu mag ci dëkk bi. Hmm. nee na nikk mbubbum sëñ bi ni ko mbàkkee wax ji de ñëpp xam na ni garaaw na ndax may yàlla mhm. tey tey tey nit mhm. loolu lu garaaw la mhm. waaye nag weddi wax bi moo gën a garaaw ndax weddi ko bakkan xaj na ci sëñ bi nee na ma fertasu waa ji daal di dali fële na ma waaxu wuti gouverneur bi mu ñëwee baaraamu sànnikaay bi la jël jam ci dënn bi ni ko kësëbta da ngay nar rek al mudabbir umur xayun laa yamut yàlla dafiy sax dàkk du fi jóg sa tamutu insha allahu mun ko xaribun léegi nga faatu sëñ bi nee na bi may wax loolu ngir dëggal saa wax nee na sunu borom daf daal di yebal malakal mawti ne ko demal faat ka mu ni lii baax na kaw ni jumlatil umuur yi li saarifil mawti lëral amir nee bi malakal mawti dee ñëw di jël si ruu gi nee na maa ngi moom nii. la ilaha illallah. tey gouvernance ne xew na fa dafa am yoo xam ne archive du ko indi waaye ñun xëy na suñuy gëstu moo ñuy may yooyu. dëgg la. surtout sëñ Matar Ndumbe lañ fa njëkk dugal ñu koy wax sëñ Modou Aminata Diop dañ ko dugal rendi ko xàttit li may wax ku dem ci terep Cheikh Moussa Ka buñ wax natto di kerkeran awliya yi daa gis li ma wax deug la mo ñettu njëkk ja ya. rendi ko xatti sanni ko ci kanam mag ni leen kep ku fi dugg fi di wax waxi yalla bo génnee ni lañ lay def la ilaha illallah ñen ñi seen iman daal di dem ci saasi daal di def yefi Amar ibnu Yasir dañ ko terku teur ko jël jaasi tek ci baat bi ni ko ŋàññal rasulullah wala ñu rendi la hmm. keroog lu ñaaw lu mu xam tek nako ci dara yonent bi ah, nopi nak ko di joy di touru xewal yonent bi ne ko li lu ko waral mu nettali ko xiisa bi yonent bi nag ni ko ba ngay wax loolu ana fu sa xol tolloon mun ko keroog laa la gën a gëm yonent bi ni ko kon yàlla gisul li nga wax waaye sëñ Tuubaa moom booba dafa toll ci maqaama laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni lu dul yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa du gis loola moo tax sëriñ bi ku tedd ki ñi dund ak moom su may maam mbokk na ci wax nañ ni sëriñ bi mu mosaan di dox di ñëw 800 mètres bu ko tollee buy waaxu di ñëw da ngay gis suuf si ti yëngu nga xam ne ku tedd ki eh. muy dox di ñëw. ah eh, loolu day firnde ni borom jamono jamono ji mu doon. loolu. Mm-hmm. am na yeneen i téere. xëy na mm-hmm. eh, étape bi ndar rek la. kon nañ mm-hmm. ci yem waaye boo demee ci mbindum Cheikh Umarul Fuuti bi la taxoon mu dem Mbàkke Kajoor. dafa tëju xëlwatu di laaj suñu borom borom jamono fan lay feeñi. sunu borom ni ko bàkkata. mu jàpp bàkkata bi ne ci alquran ci suutu al imran inna awwala bayti huddi ali naasi la lazi bi bàkkata mu barakan wa huddan lil alamin fi ayatin bayyinatin maqama ibrahim man dakhalo kana aminan walilahi ala nas hajjil bayti man istata ila sabila wa man kafara inna allaha allah halimin sadaqa sadaqallahu azim ci suutu al imran mu jàpp bàkkata bobu dem màkk tëju xëlwutu yàlla ne ko waxuma bàkkata bi ne penku bi ne soow laa wax mu wagne ko ñëw mbacke bawol diir ba mu fa sax nee na téeméeri nit feeñ nañ fa jamono Cheikh Umarul Fuuti moo ko wax. Mhm. nee na juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeenti jigéen lañu kenn moo ci feeñ ju góor mooy Cheikh Ahmad Bamba Xadim Rasul loolu moo ko xamal ni kon. ci année boobu ci année boobu. Mhm. nee na juróom téeméeri nit feeñ nañ mhm. yëpp jigéen lañu kenn moo ciy góor mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasul. kon loolu moo wone ñëpp ni moom mooy borom jamono. mu waxoon ko it sañ Bay Jaxate ne ko ñett tax mu dem ci géej gi mu ne ko Mbàkke ndax mën nga ma ko baaxe mu ne ko damaa dem ci pays sunu borom yi gis rasulullahi wéet fa pays yi nee na mhm. ma ne yàlla nees di def ba kee fu mu teg tànkam bu teggee ma teg ko fa nee na ñu ne ma nattoo koy joxe ba noppi nag ñu teg lépp nag ci sunna mhm. su ko defee sëñ bi nee na loola mooy gën ci taalibe yi mhm. ndax Touba lam fa def kenn ku nekk gis na ko ba nga xam ni tey jii moo jur walwal ji ngay gis ci dëkk bi fu ne ñu fay tabax yi jumaa mhm. fu ne ñu fay defi safar mhm. dëkk bi fépp di riir mhm. barki démboo njaay rek la ko suñu borom defal ndam lu rëy te mooy jumaam guy Masaalikul Jinaan bi boobu moom je pense kuy murit wala ngay jullit rek xam ni fierté diine islam waaw daanaka fierté islamique bi sëriñ bi day jógee ndar xëy na di dem ndakaaru ci condition yi sëriñ bi demee ndakaaru rek tax na suñu boroom jox ko neexale ko jumaa jooju nga xam ni otoraay lañ ko dugal ñu sax sëriñ bi tok la ilaha illallah dafa taxawé ndar ba dakaru ndar ba dakaru mu taxaw mu taxaw ko loolu met na di ñu jël ay ndañu fétal ndañ moy kano tek ko ci ñaari mbag yi ni mhm. fourgon ya nga xamné fa lañuy duggal fas ya ak bayyi may fofu lañ taxaw loko tedd ci mu taxaw ndar ba dakaru moko mhm. netal ci khalima bopam mhm. fa la makana zalika al yawm rakiba min dar ila dakar neena wo woowa mun bi may dem dama wor sëñ bi nee na bi may waxtu timis la mangi ngi bëgg julli timis maa ngi bëgg dallu tuuti ndax yëngu-yëngu bi may yendoo xam nga train à vapeur yu njëkk yi mhm. dañ ko daan xambe mat day bëri yëngu-yëngu mhm. sëñ bi nee na woor maa ngi bëgg dog sama koor te dog koor sunna la nee na isa fa isa hubboo bi rasuli yatlubo boo na ndaw ni ma kaay wuyu mhm. am na ku la soxla nee na fan talaxe bii ma topp ndaw la ndekete ci néeg boobu lañ ko jëmee ay la yàlla dégg nga li Cheikh Moussa Ka wax nee na fii laylatil jumaati lañ ko tàbbal ci néeg bu lëndëm noonu naan ko lambal nee na mu làmb daj ay gobaraki rabbu ñu tëj ko fa mu des fa ak rabbu sëñ bi nee na bi ma yooree sama tànkum ndeyjoor ci rabbu la dëgg mu jëm ci sama tànk ba sax allah sëriñ bi sa ndakaaru sa ndakaaru mënul sax néeg boo xam ni gis nga ku tedd ki ci Zahir ni mu toll. xam nga du nit ku. waaw mën nga ko misaale si sëñ sëñ Abdou sëñ Abdou Xaadar rek. daanaka jëmm ji benn la. waaw bi benn la. Mhm. Cheikh Moussa Ka day wax nii col soo ko xiyaas mu yées ko waaye béréb boo ko wutal mu fees ko mhm. béréb bu sëriñ Tuubaa xatul kon xajul kon xam nga ne foofa xat na mhm. ñu tëj ko fa sëñ bi def fa ñetti guddi ba bindal boppam wax ne guddi yooyu bu ma ko fàttalikoo sama xel dafay dem ci jël gànnaay songu tubaab bi xeex moom mhm. isa sakartu saalikal mabita wa saarikal amira wa tabo saboota tara ilal jihaad bi lar maay na fi waaye walakin sabanil may yi nee waaye farkatu bàkkaar ba rasulillah alayhi salaam moom ma ko tere moo ma wax ni ma ahmadu ma ne ko naam mun ma wax ak xaj mbub mu xotti ko xaj na ci nee ma ne ko nu may def mun ma da wax ak borom xaj bi. ndeysaan loolu moo tax. sunu borom fay ko ndam loolu di guy masalikul jinaan mhm. sëñ tubaa nag cheikh mudul murtada leeram borom jaasi badar mhm. da daa faral di wax ni boo ko laajee mbàkke kuy sëñ tubaa mun la sëñ tubaa mooy lislaam dëgg kon loolu moom leer na moom bi moom lislaam doo nga ko taxoon di jëf loolu leer na na euh, mhm. loolu moo doon kii bi waaw am na solo suñu suñu suñu xol suñu xol sedd na alhamdulilah ndaxte euh, waxtaan bi am na solo alhamdulilah yu mel nii bu bu jegesee da ci baax loolu ñi ñi ci waxtaan di mën a xamal nit ñi ko te ki dëgg la waaw xanaa rek temps bi moom euh, euh, mooy li ma doon wax sànq rek sëñ bi moom xajul sax ci ci ay ci ay fan waaw waaye comme que loo xam dafa war a dafa war a jàll hmm. nit ñi war ci barkeelu bu ci nekk ñu ci def sa yéene waaw bu ko defee rek bàyyi la nga nga nga nga nu nga tëjee ak ñi nga xam ñoo la daan seetaan di ci waa Saint-Louis TV hmm. euh, téléspectateurs yeeg wala internet yi hmm. nga mun leen nuyu ziyaaren baaxe leen li nga xam moom nga leen dénk rek ci ci màggal gi waaw sëñ Cheikh ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di bëgg ci waxtaan wi yàlla seede na ne ñun amuluñ sëñ tuba njariñ lu dul mhm. xëy na gàddu rajo yi rek di ko sant loolu mu mhm. wax ni mhm. sunu borom nee na kuy dund ak ku faatu it boo ko xamee boo ko xamul jox na la ndigalal nga sant sëriñ tuba te loolu wax la jum bind dana moo waxal boppam ne eh, ana jameel muminin wal muminaat kon jullit yu góor yi yu jigéen yi al ahyaani wal amwaat ñiy dund ak ñi faatu mu ne xat raddoo alayya sunu borom sant na ni nan ko sant le Serigne mhm. kon loolu rek lañ leen di diggal beneen bi mooy dafa bind wax ni sunu borom moo wax ne mhm. fi Serigne Touba wéer xalimaam ba keroog ñuy wol bufta yàlla ak malayka yu ko jege mooy xaaloon yi ak saafiloon yi jërëjëf Serigne Touba la ñuy wax nee na ñu ne ko bindal loolu mu ni mu bind ko ci mbindin mu leer loolu toujours damay faral di ko wax kuy waxtaane Serigne Touba da wax lu leer. Mhm. ngir wax dafay tingom seede. Mhm. mu ni mu bind wax ne it kon sunu boroom moom da koy sant mook xaaloona yi ak saafiloona yi gis nga sëñ dama lay baaxe ci mbindum Serigne Touba rek. Mhm. booy jàng mbindam sa wéjur jiitu yàlla na yéex. dafay puukare woon man am naa doom joo xam ni day jàng. mbindum Serigne Touba feefa barsax da koy puukarewoo ci yeneen néew julli ji kon gis ngeen liggéeyal Serigne Touba ni mu amee solo mm-hmm. moom ci boppam ca Gabon mm-hmm. daan na toog ba mu yàgg muy diri waxande yi di dugal bu taw bi soobee bu sowatee mu diriwaat waxande yi génne ñu laaj ko Mbàkke lii lu ko waral mu ni damay liggéeyal Serigne Touba ngir ku liggéeyal Serigne Touba yàlla fay la mm-hmm. mm, loolu kenn ku nekk kon war naa xam ni liggéeyal Serigne Touba dafay def ci nit lu bëre gis ngeen ni Cheikh Issa Dieng yëwanoon na ci àddiya ba ku tedd ki nen dama daan dox ci mbeddu njaaree mi nee na sàkket yeeg garab yeeg miir yeeg lépp naan ma bul fàtte Cheikh Issa ak waa këram dara warul ko lu dul joxe àddiya kon àddiya jooju bu ko kenn xeeb mm-hmm. li sëriñ bi wax rek mm-hmm. ku am gëléem bu ko yéem mm-hmm. ku am ganaar it bul ko xeeb ndax lu ci waaye defal sëriñ Touba. sunu borom dana la ko fay te kenn defalul kenn dara lu waaye def sa bopp looloo daan wax kenn ku nekk na jàpp ni màggal gi bisu jàmm yàlla la te bis la boo xam ne lu ci waay def. Mhm. te yàlla rek tax sunu borom dana la ko fay ba noppi fulal ko. Mhm. te jamono gis ngeen ni jaamu yàlla jafe na. Mhm. kon liggéeyal Serigne Touba dong moo fi des. ñoo ngi yemale kàddu gi foofu. lu ci jub nag kàttanu yàlla la. lu dëng nit moo mate ñu jégal ñu ko. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. am na am nañu mbégte loolu ci ci ci waxtaan bi. <laughs> ndeysaan sell na loolu te tamit euh, njëriñ rek la. waaw njëriñ rek la. waaw di sant ñëpp ñi nga xam ne ñuy seetaan ndaxte mbégte gi nu mooy ñëwut fii waxtaane li nga xam ne mooy yoonu màggal gi hmm. waaw ndaxte je pense que euh, sëñ bi liggéey na loo xam ni hmm. yu mel nii bu amee yoon la hmm. ñu mën a ñi mën waxtaan ci moom bu baax a baax baax ndax kàddu yi du kàddum leen lu dul kàddum soññe waaw kàddum soññe rek la bu ko defee su suñu xol sedd na suñu xol sedd na lool di la si di la bégge bu baax a baax di jéglu jël nañ sa temps yëpp waaw ñu ngi si jéglu lu baax a baax waaw si disponibilité macha allah di ñaan rek sëñ Tuubaa fay la moom mi am fay yal na la fay waaw di siyaar punya ñoo xam ñu ngi waajal màggal gi di wax rek eh, suñu borom yóbbu ñu si jàmm ñu jàmm nit ñu si jàmm ñi nga xam tamit ñoo nekk si télé bi te ah, chauffeur yi mm-hmm. ñu daw nànk te xam ni ñëpp doon bëgg dem rek mm-hmm. ngir eh, barkeelu ci eh, mbaaxu ku tedd Touba mm-hmm. bu ko ngi gërëm di sant ñëpp di gërëm ñi ñi nga xam ñoo nekk ci ginnaaw Cheikh ak ak suñu Tafa Diagne sunu sunu sunu daanaan bi cantaaku nu mag bi taal Sëriñ Saaliw bi mhm. bu ko defee ñoo ngi jox ñoo ngi jox dig ak daje ci yeneen numéro incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen